ca arab ci yéen seen téere bi 30 lan 39 waaw yokkati mu nekk ci yow ñaata ah 55 man mu nekk ci man juróom ñaar fukk mooy 71 ah lan la bay wax safir naa bi sirin xam na naa lay sa yow foofu fa baaru rasool lay bi siri yàlla fi so ak sa dégg sawir naa jot nañ ñun ñun jot nañ ñun ñan pays pays xilaaf bi sirin secret boo xamante ni xabla naa lañu ñu njëkkoon lay sa yow fasoo dee ko fa am ñun jot nañ secret boo xam ne ñi njëkkoon amu ko amuñ ko waa léegi nag boo nekkee ci pays boobu nga gis koo xamante ni waxuma koo xam ne dafay dikk de jël waaye ñun dëgg-dëgg maarifa bi ak fii ni tey ah, moom la bàyyi wax na waxat foofu fil irfani man kaan yarifu kon nag jot nañ ñun loo xamante ni xamuñ koor ku ko am lu ñu ko foo baar rasulullah yi génn ndawal laa nag yel fasu moo buusu bi siri secret bi géej ak ndawal laaxul moo bëgg moo ñu bëgg secret bi kan mooy ndawal laaxul kooku moo ñu ko moo ko ñu ko envoyé waqad alima al aqwamu ani qadimuhu mutayamu sawqan wudduhoo dahara yaxfasu waqad alima a xam al aqwamu góoru yàlla yi dëgër yi xam ne ne ani man ibrahima qadimuhu moo qadimuhu man maay jëwrinam piir maa xalaftu ba di si waaw loolu la wax de mooy kenn mën tamat jot jot jot ci man dara ci jaaru moom al mutayam koo xam ne ko def jaam ah kon nag saw xan ndax mbëgg ko rek ah, wudduhoo mbëggelam yax fasu dañ koy sàmm addaara fi at ngi daaw rek maa ngi sàmmante mbëggelam su xiftu bi ubbil xaasimi wa inama aqaalu safi an men suwaahu yuqarisu su xiftu dañ maa bi ubbil xaasimi dañ maa mbarax mbarxan la ko mag ñi waaye mbëggeel goo xam daf laa jàpp mën a too sa ko moom mooy surumle bëgg asim yi bokk ci bani asim daf ma ah, mbarkan wa innama aqaalu wér na ne jotuma safiyaan ku manki man yu su kuy tagg si waaw ku ma dégg ne yaa ngay tagg taggoo rek rasulullah yi dama laa jàppale yow jàpp ma ab dof nga waaw yow ka ngay tagg lu mu am ku yoru fiftit nga topp daan koy yaa fi nangam yaa fi nangam te amul dara yow da ngaa dof dëgg de wama sa alal barxaam ah, fa laysa karimun yurtaja xayru ahmadin wa laysa malihan ma siwaahu fayil sa kër yi karimun amul ku tedd yurtaja koo xam ne des na ko yaakaar xayru ahmad ku du ahmad amul borom tiraanga joo xam ne am na fi ku ñu ko yaakaar ku du amul ci kaw suuf wa laysa malihan amul lu xorom maa lu man doon siwaahu ku du lu fi am xorom lu ahmad fayil fasu ba ñuy yëkkati bi di ko tagg lu fi am xorom bañu koy tagg ku man xawma ko man Ibrahima ñess mom rek am xorom ki moy borom tiranga ki mo am xorom lay bàyyi Niass wax lu ko lu ko lu ko waji defal nag jaar na jaar na xorom wamasa al barhama tama bi hubbi karimun jamilul qat yughlis wa ma wamasa ana lan alal barham moy këpp ci barham bi mana ban hay moy dal barham taam ak koo xam ne gërëm na bihu bii bëgg yónni bëgg rasulullaay baraham mi gërëm ci bëgg ahmad bi ban histoire moo ko ci dal dara sama waa ji kër yi mun ko tedd jamilul xulqi ku rafet jikko la maa yuxlistu maa yuxlistu du naqadi rek xëttu mukk wala wañ ko defasan xalisal xal bi kii moom doo ko fekk mooy koo xam ni ku naqari deret la xatti xatti xatti mooy taxlis bon nit ko da nga fekk dafa ko fekk rek dafa neex dërët fa alay alay fa laysa alay la moo fi sikri was fii wa in kuntu laa ox ni fatilan uqarisu fa laysa alaya amul luy dal benn ay bu may dal wala bu fa laysa alay waratu man ala mu yëraange fi sikri was fii bu ma tuddee melokaanam su may tudd melokaanu ahmad kenn na waruma ca yedd wa in kuntu même bu ma nekk sax laa ox ni man maa jëriñ fàtte lu toll ne fàttal su ma ci mënu dara it dinaa fa sikri sama sikkar loo ñel ko tudd gi may tudd ahmad iksiru kulli saadatin mooy superman kaa yi bépp texe sama kun fekkun mooy tagg ahmad lu ma bëgg rek su ma taggee ba ahmad rek mu daal di am xaali yan nekk toom salaatun salaatu aqira dade ba ca mu jóg daru tuufa su boo xam ñu koy wattu yàlla na ko yàlla defal salaatu googu xaali salaatu a yan nekk toom salaatu laay suma salaamahu bi ay salaatu ba attaqi laa yéegee firu bi ci mbëggeel wa afasu may sàmm almata ay tagg ami ya rabbil alamin xaali salaatu laay suma salaamahu li ab xaa xadiman bi sana atalafasu yàlla na yàlla def ci moom salaatu wasalaam bu ko defee li ab xaa pour ma xadiman def surga boo xam ne atalafasu maa ngi wax bi sana ay taggam amin alay maal alkiraami wasal bi salaatu na yàlla def ci moom salaatu ak alubo alkiraam wasal bi salaatu wa taslim boo xam ne madadari fekk àdduna ngi daw tuufas ñu ngi wattu am ya rabbi xarful ayib kon ba tey ñu ci iksiru saada ci diwaan bi ci arafu ayib bi abarqun ba abarqun ba daa nawal marabien yelmaxoo am nim imra an is yelmaxol barko bii de gars dañ koy faral di wéy abarqun ndax melax ba daa moo feeñ nawal marabien ca côté yaa xamante ni mooy pàkki sama waaja ما ندخ لي مسير ملاك يباي كوت باك بلا يال ما هو يقام من يجي ملكتي يودي فهب نجاب ما إمرأة ما يباي إيش يال ما هو باك يال ما هو باك من يجي ملك البرك بلا ملك تايو دي جن ملك جي ملك باي كونه تتنا بابو كمال لمن مي يال ما هو مانجي تقل أيروغي يو جابل نمان وايلا بوكان بومير دين تاي باي كوفو جابنا bàyyi de Ibrahima mi Ibrahima de xam naa temps yi mi ngay jooy te lan mooy lan ñu ne weeru gàmmu mi ngay tër lamaxta bi wax nin wayka hijta sababatan warax raaqadam in saatal xayi tax ja tax ja o lamaxta gendeekuwaat bi wax ñu ci jamono ji wayka nga la yow ah, bi maanaam mel na ni merax gi ne na taay def ko tër waaye yow heure bi ngeen melax dafa dama tit xicca yëngal nga sabaabatul mbëggeel waaye yow yëngal mba soo mbëggeel bi warax raaq dem in ak toq-toq ay rongoñ kañ bàyyi saat la ay jamono wax na quartier ba yattaa jooju nga nelaw jamono wax na quartier bi ñëpp ngay nelaw waa mbir na yëpp ngay nelaw rek melax gën tàyyi rek man man tumaa nelaw nag yow def nga musiba ah kon nag tusa kiro ayama si ba wa yëqan ma da ولم يبق إلا لوءة وتوجه تذكروا داي فاتلي مام ميراك اياما سبا جامونو نداوكا قال وخم بالي وخم دا فا نيكون سي جامونو يوخم بالي دوخ دم داو داو دم تا جيجا دا دا خالي دم ديك وي هي تفك جامونو نداو كان ما دوين ولم يبقى تستر الى لو اتلمي لك قل وتوجد المثل خمغا ماغو مبر ماغا مبر مو خنا مانتول بري mu seen xale yaan ci làmba jay mu seen koo kott kott bu rafet cam cam ay ba ma ma cay toll xool bu naqar rek la fay déggee moo tax ah, mbërëm mba magum mbër noonu rek la fay nekk xool bu naqar cam yow ba ñëwee ci kër ga lay gën a xas nag cam ni nga bëree kenn ko bëree waaye nag du tax moom dugg ci làmba ja def saqalaahu ardal bin madinati innaha ma tarihalin fii xarqiya yurqa'u saqaa yal na naan alaaw yàlla aadan suuf sa nekk biir madina ca madina inaha suuf soo sax maata rihaalin mooy sippekaay ay bagage fii ci moom yor xaxa la ñuy daaxee xarkee sama xotteeku xotteeku yi sama xol bu xotteeku bi balaa moo daaxu rek dafa dem ba Medina diyaaru xabibillaahi wa huwa aminuhu diyaarun bihaa tulfaal mara fiqo aj moo bàyyi foofu mooy kan mooy fan diyaaru abibilaayi mooy këri soppe yàlla ba woo foofa moom moom mooy kam wóoru diyaarul ay kër la bi haa ci kër yooyu tool faa ngay fekk almaraafika àndoo yi ak ñoom àndoo yom ñëpp boo demee ci kër googu fu nga leen fekk ñoom ñëpp ñu nga fa groupe ah ñu ngay waxtaan diyaarul liman xaamal fu àddu bi ubbi wa taskaaru xooleel xal bi marha wa marta diyaarum ay kër lañ ku ko moom li man ñel na koo xam ne xaama gërëm na alfaadu xol bi bi bëggal ko kër gi nga xamante ni kër waa ji nga xam ne sama xol dafa gërëm ndax bëgg ko moo nekk foofu wa taskaaruhoo fàttali ko kër yooyu fil lil bi ci xol bi marha mooy sa sama saamuwaay wa marta mooy sama farluwaay sama xol buy fàttali ko kër yooyu rek ci lay naat ci lay nekk moom sama xol bi diyaaru li alal xalqi xulqan wa xilqatan diyaarul liman fil xalqi yu'ti wa yamna këri baay mooy kër gan kër yan la diyaarul ay kër li alal xalqi ci gën a kaw ci mbindéef xul xan ci bindere wa xilqatan ah jikko ak bindere ki gën a kaw ci ak bindere moom moom kër yooyu nga ne diyaarul ay kër la li ma koo xamante ni moo joxe wa yam na mooy tere fil xalqi kum ne am nga jël kum ne doo am doo ci jot waaw oh, dëgg de ñaata moom mooy seetlekat bi seetlekat bi moo dëkk fii ki nga mooy jox mi ne bi kum jox nga jox nga jot kum ne doo ci at ñun ngay ñaan yàlla nañ jox waaye wa akramihim nafsan wa sihran wa nisbatan wa ilman wa adaban wa atqa wa aqsa wa akrami moo gën a tëdd ci nit ñi nafsan bakkan bakkan moo gën a tëdd ci bakkan wa sihran moo gën ci gën a tëdd goro ndaxte kan baaba kan wa nisbatan nisba bi nga mooy nisbaam bi nisbaam bi moom kii nisbaam bi moo gën a fort nisba yi ah, xam nga ah nisba muhammadiya ahmadiya mooy nisbaam kii moo gën a fort ci nisba yi wa ilman moo gën a tedd ci teraanga wa aadaam moo gën a tedd ci yar wa atqaa kii moo gën a ragal yàlla ñëpp wa axsan kii moo gën a mën a toroxlu ñëpp laa ilaha illallah kii mooy san waa ji ah faqad kaana xayru xalqi faq man mu faq man Woso hai batin wal masio fi takaloo, fakar tane kena tayro kalke, mu gan timi dai fakman, mu ikoo kam nekum mag dalakum ngandala, mu fakkaman mai kum ngandel, kum ngandel gini, kum ngandel gini, woso hai batin parang wegaloo, wal masi doh ngim fi timom, takalum muai budikku, yonatim budok, dai da sepet, sepet, sepet, wai na keref, keref ni. moom doxee noonu doxinu seppi lay dox ndeysaan ah fa taqalo wa asaru law arhajul ayni tasdari bi ayni maha hendal xamilati tarto ah xasida bi dafa xoromu dafa gudd wa asaru law nin rafet couleur la bi maanaam couleur bi dafa xaw a weexul tàll xonqul coyi moom dafa nekk mélange xonq ak weex mooy comme fële moom asar la ñu axajul ay ni ku xool bët la bëtam bi du bëtu boo xam ne comme bëtu oustaz Gueye bu euh, lu ma xaw boobu bët ba dafa xool tas dëri dafa xeeb bi ay ni maxaa nagu àll moo gën a rafet bët ci nag ci rabi àll yi waaye bëtam bi xeeb na bëtu àll waye sax bu nako al waxuma nako al waxana pour ordne la boo xam ne ma ngay fas indal xamila ci bitil garab xam nga rabu nek ci bitil garab yi ah jent bi dako jam muy xol de sanni beuri ya, fofu la gën a bu nekkoon ci dig nay bi <laughs> waaw ñu xam nga ne limay arab du ko ti nagu al woo xamne ne ma nga nek ci bit ah, pité garab ya ah ni nga mam garab bu rafet ba jent bi dako jam muy sanni beuri ya ko gën rafet waa waarjelu aynin adhajul safri waasi on jabinu laay wal xulq aso ah dégg nga eh, ndeysaan xam nga adhaj bi dama ko juum dama ko bana ah, dégg at lawn adhajul ayni bi maanaa bëtam ba la ca ñuul da ca ñuul kukku loolu laa ca jublu bi maanaa ak ki xéen yi nii loolu la anjël bi moo ko moo ko anjëlu ay ni ko xool bët la ah damu sufri ku sax maanaam guddi ay xef la xam nga xef yu gàtt bañ ne ko jigéen ñi léegi bugg a rafet dañuy def <laughs> xef yu gudd waaw ah, <laughs> poose xef yi moom ah, waase on ah, lu yàlla jëmi noo jëm jibi ah ku ñu comme ji oustaz génn kon nag jëmee rasulullah dafa yaatu waaye nag bool xul ko jikko jën nag aw son ji jëm jë jéeba na mu yaatu yaatu jikko jaa ko gën a yaatu aka yaatu jikko moo ne aka yaa xol asaju wa aqna wa cuutaha mudawwarun waliyatoo kasun wa sadro muwassaw asajun ku sew ay yéen la xam nga yéen yu yu yu bañ nañ ko ba léegi jigéen ñi dañu wàññi sax yéen yi ndax mu gën a rafet tuuti <laughs> dégg nga ah yéen yi dafa sew wa aqnaa dafa sojet xam nga bakkan bakkan moo not nii bakkan bu def sojet moo gën a rafet gis nga boo demee ci sa boo demee ci naari fi ne nii ñoom dañuy def dañ koy defee sax dañ ko liggéey ba léegi day taxaw moom sukk bakkan def ne sojet wuccu taxaa karkanamu taxa mu da waroon dafa wër bi maanaam du kanam koo xam ne dafa gudd collit nii wala mu yaat nii dafa yem dafa wër waliyatoo si kimba kasan dafa nekk kasan ba dafa dafa dafa sëq wa sadru dënam ba moi sax dana yéen dana góor la yor dana ba dafa dafa yaatu ah wa man ki boo asim bihi wa isaamuhu di qaaman wa raxul xaddita murabba wa man ki boo waggam ya wagg mooy yii asim yéemul amag bi ci ak ak ak ndaxte góor góor fii ngay xamee ne kii ma waaye saam woo yaxam ya di xaamoon dañoo dë dañoo dafa dëgër ay yaq mu yonent bi warab ol xaddi ku rattax leex la taataa almarafon ku yëkkati ko la taa dafa dafa am taxawaay <laughs> taxaw dafa dul góor gàtt comme ni oustaz Gueye kasa euh, xadd odd kasa addadun ablun wa ablun siraango marahabu marahibu raaxaatin wa anwaaru talma kasaana ko xadadu li yox gone yi li ñuy wax na fi doole përëg përëg mi dafa rëy moom yonent bi salaam xablul dafa dëj dafa dëj waa xablul di raxatoo siraawoo xasabu xasabu mooy fii xasabu bi it xam nga fii ak fii ngay xamee boromi doole moo tagaay bu ñuy entraîné yooyu la ñu liggéey pour pour mu am am doole <laughs> dégg nga <laughs> waa xablul siraawoo ah xam naa moo tax man yaakaar dama yenu benn weñ moom moo tax duma rafetlu dama ci rafetlu dara <laughs> moom nag yenuwul weñ moom <laughs> yàllaa ko bindee përëge dañoo fees xasabu yee fees mu rëy bu raaxaatin ku yaat tënk la mooy buñ ne di ku yaat tënk la ma ko mën a wal anwaaru leer yi tal moo day milax yonente ba la romb ah milax yaanen mër malax milax wasaayilu atrafin wa xayru musasafin hasimu karadisin min al xalqi arfo wasaayilu aw saaf aw atraaf ku jot ay cër la yonent bi cër yi dañoo jot moom salaa salaam wa xayru mustasafin wa xayru mustasafin dur koo xamante dafa ku dafa ku bi maanaam dañu dafa kuuñ bi maanaam dafa kutuñ déedéet dafa jot dur koo xamante dafa kuuñ noonu hasimu karadisin ku rëy ay yax yi ay ay bopp yax la yii nii karadis ay yii ku rëy ay bopp yàq la xasima ah, karadisin arfon moo gën a yëkkati ne xalq bu mu toogee bu toogee nit ñi moo féete kaw ñëpp yonent bi ak mbooloo lu njool lu njool ay njool njool toog bu toogee ñoom ñëpp moo leen tiim ah moom boo jiite ma doo duñu xam waa kan la ah mooy waa jële xam nga boo gisee ka boo gisee ñu ne kaala ñu daan mag ñu daan ko def kaala cërifa moom dong moo war a kaalu ci mbooloo bi ba ñu ne ñu ne ñu ne kaala kaala mooy këli la ci lañ kaala <laughs> waaye ñu ne tey mbooloo bu ñu dikkee ñoom ñëpp dañu kaalawu waaye bu doon ma njëkk moom kilifa yoo xam ne muy kilifa boobu moom dong mooy moo tax bu doon ci kër commissaire ñu ne fa mbaxana nekkee benn bu dee ci mboolam mi ba ñëw fi kilifa kili moo tax naar gànnaar yi ñu këli ñu kaalawu nii ci karambaay mukk loolu ñun ñun Saalum Saalum ñoo ko ñemee kilifa nu kaalaw nga kaalaw xar fu jën ak xar ak naari gànnaar yaa daje fukkaay daje fukkat baay mbaxane fukkandoor fépp Seydi Baraam dégg la Ibnu Ka xar fu jën ak naari gànnaar yaa daje fukkat baay mbaxane fukkandoor fa Seydi Baraam kon nag moom nag bu toogee rek moom jarul sax ñu def kaala waaye rek ñëpp moo gën a moo gën a féete kaw ñëpp moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon nag ah, foofa de fa lay taxaw ñëpp féete kaw وأذنب صخر إن تبسم ينجلي كابقما من أولك البرق يلمو وأذنب دفا نيخ دوخو بي سنب تي دوخو بي موي ويخاي وخم دفا بي دفا بي دفا عندك بلا خم دو ويخ فر رفتو آه، ويخ وخم دفا عندك بلا لول موي سنب تي عرب موم دوخم دفا عندك بلا دفا ويخ عندك بلا موتر أذنب صخر إن كو رفتو sàkkul yàlla in tabasama bu ne muuñ bu ne kekk ah yéen jël yi day way feeñ kaabil xamaam mel na ka ah, pepp niir euh, xam nga ndox ba ne put da nga gis mu def benn benn put bu weex tàll boo seenee naa bëj yay waraxee comme noonu lay mel ak bàyyi ñes a makam aka a mela aw lakal barki yàlla noonu wala boo seenee bu muñam bu ne bu ñoom bu ne tay muñ day mel na melax moo ne tay salaa waxaamatoo osma li siirin tarajulun mm-hmm. ah, waqaafin tarfin saakitun wow yàq saw wahamatoo kàng bopp osma yonte ba bopp dafa rëy mm-hmm. waaye góor gu bopp sew ni ustaas gay rafetu li séerin ñeel na karaw nga tarajun e jarat karaw nga daf koy piñe de du ay restaurant de restaurant mukk restaurant du nit yonent du yonent koy peñe ba nga xamante ni day mbaasaan ah dégg nga maam daal di àndoo waaw taxte ah daf koy diw daf koy pañe diw ko ah yonent ne ah loolu woyoon naa ci woyu yàgg-yàgg <laughs> yéey xam nga bu njëkk lu ko gars yi tuddee yéey yéey lañ ko tuddee maanaam borom karaw yooyu mooy ne borom sa bopp yéey yéey bi mooy bopp rastamaan yi léegi lañ ko tuddee rastamaan yi <laughs> ah, kon nag melin wu yéey melin wu yéey yee daw ko yow ndaxtu melul woo du du ndaxtu melul ni euh, ndaxtu melul woo nit ku nit ku yow na ak karaw nañ koy jar tuddee ko diw wuy naa ko bu yàgg bul mel na yéeyee yi maanaa ñi nga xam ne mooy rastamaan yi ndaxte du melul nit ku yiw yow loo baax baax ak loo am am diina gannaaw rastamaan nga rek rafetul te ñu ne danga gis ñoo xam ne tey am nañ diina kat ne rastamaan déedéet boo dikkee fii ci Sénégal ngay wane kii waaye boo demee ci tubaab yi lu tax ngay boo dikkee Sénégal yaa ngi yor tax parce que tubaab yi loolu daf leen neex rassemblement bi ak lam yi su ko defee tubaab yi tubaab yi jigéen dañu dañ lay xëccoo léegi nag boo dikkee fii Sénégal nga bàyyi ci loolu da wane am naa diina déedéet diina yonent bi dafay dafay jël karaw gi jar ko bam kon nag li séeri tarajulum waa xaafiri tarfin dafay wàcc bëtam yonent bi du dikk da xool de xaajaaral day xool de wàcc xaafiri tarfin saakitun dafay pa moom yax soo dafay taroo yonent buñ toogee dégg maam nekkul ci waxtaan wax ne pour réunion pour kii doo ko dégg foo ko dégg rek ma ngay mbal-mbal moom kenn wax ci kanam wa asaanuhoo maw mawsulatun bi tafakkurin wa in qaala qaala faslu fas qaala euh, daf ko yàq wal yar yarjon daf ko def faslu de waaye faslu la euh, gis nga moo tax gis nga wax gis nga lii il faut nga capable ba lu ñu gaa yi yàq nga xam ne ñoo ko yàq ndax bu yàq waxee waxee ay tiitaangeem na muy tiiti ci yàlla moo dafa nekkee xalaat rek rek te yàlla booy xalaat sama rek boo waxee xaal alfas wax ju leer dafay am lu may teqale wala xàqu dëgg yarjoo waxam bu waxee rek su nit ñi waxee bu pare su waxee rek dëgg day dikk maanaam laax dëgg dëgg feeñu wa yansur laxsan wa hiya lil ardi xaaliban ko si aban wal malaayiko tadbo yansur dafay xool laxsan ci ron ni yonent bi bu lay xool dafa lay def nii rek xool rek wàccaat bu di sa saran mooy ron ni ron ni ngeen ko tuddee maa ngi ko fi ropp ropp waaye yow loo may roppoo nii wala loo may ron ni nii mooy lax sa fekk mooy teg ko am teggin waaye ku ne la xujj rek di la xool rek loolu rafetul ah wayantur lax san woowu moom xool ba sax lil ardi mi ngi xool sax taaliban lépp booy xool ma xool wax na dëgg waaye yontu ni ci asamaan waaye yontu wax na dëgg li may xool mi ngi ci mi ngi ci suuf kanamam a ah, ñun koy ñooy xool naan yàlla mi ñu fii féete ko waaye yontu moom a ah, moom ma ngay xool la ci kanam de li ci ardi xaaliban yesoo ko mooy jël sahaban andoya wal malaaka malaaka topp xam nga ñun sëriñ bi day jiit taalibe topp yonent bi def loolu yonent bi jiital ñëpp ñu jiitu mu topp seen kaw malaaka yi topp seen kaw mu jaar diggante malaaka yi ak kii parce bañ ndax malaaka yi moom ku def faux bootu rek ñu dal sa kaw moo tax nag dafa jiital saaba yi topp seen kaw malaaka yi ne malaaka yi moom ko jege moom su ko defee lii laa ndoxee moom la ilaha illallah ay bàyyi ñas xanaa yaa fi kël yi waay inna lillahi wa inna ilayhi cey woo ji doro sallaayi yusbihu dum yetan isaa faraqal ashaaro yebdoo wa yelmo woo ji doro sallaayi loosam wax loos mooy lii loosam wax yusbihu dafay ni dum yetan ab estati ndax ratax looso dafa ratax mel na ko kii bu ñuy yett ah ko def ko peinture isaa faraxa buy teqale al asaari karaw buy yënte bu jëlee karaw gi da ko da ko peñe ah doo day feeñ yooyal ma xoo maanaam ngay gis teeru bopp baa ngay feeñ de melex melex leer nañ rafet man de bàyyi jaxal na ma nim nim doomi ji nim ko nim ko nim ko nim ko misaale ah wakka loolu in makk noonu wan misku arfu o fa mis la rasulillahi lam yuxsa mañ moo wakkaluwul yi dafa mel ne ko or almaknun boo xam ko def boo ko gisee rafetaay ba or boo xam ne bisi ci moo ko tëgg par def ko ci këyit bu xonq boobu na may rafete ci biir taaram bi noonu la mel wal ko parfum ba parfum ma nekk xëyam xiñ bi ñaqam yi day xiñ parfum famille la restulaay ku mel ne que ndawalaay la lam yox sama su ko ciroo mañ moom benn mbooloo benn mbooloo moo xam ne am nañ ciroo nañ ku mel ne que yonent bi ah nee na day amul ñu ñu mot <laughs> ah ah jël si nañ la kon nag asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bu suwaa ñu wat la yéneen ci bi nag